salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di leen ndokkeel tamit ci jataay bi di jiital ci nuyoo bi ak ndokkeel gi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ñu ngi toog ab jataay nii ngir lépp rek jëm ci wàllu ndigalul sëriñ bi ak waajal liggéey bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy màggal gi ngir fas ko yéene defe ni ko sëriñ bi bëggee ngir ñu mën cee jariñu mën a duy suñ ndab nit nag su fekkee dafa bëgg duy ndabam dana dafa war a fexe ba dara du karaj ca ca ca ca ndab lam yi raxas ngir ngir war cee sotti lu lu fexe ba dara du ca karaj dara du ca xajam loolu nag kon jaadu na nga xam teggin yi ngay làmboo ak yi nga xam ne moom nga war a euh, yóbbuloo ba loolu du la dal tax na nag euh, xam ngeen ne ci biir ndigalul sëriñ bi daayira Muxaddamatul Xidma depuis 1994 sëriñ bi Cheikh Saliou Mbacké joxoon na ndigal ngir ñu saytu barab bii di sàmm worma ji ci ngir fexe ba lépp loo xam ne dëppawut ak bëgguk sëriñ bi du fi am ci njiital sëriñ bu Bousso mi ak ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci moom euh, dëkk bi naka jekk loolu la loolu la fi sëriñ bi digle jamono yii ñu nekk nag Cheikh Mouhamadoul taxa jox ndigal. Euh, sëriñ Abdou Ndir Moustapha ak mboolem njabootu Cheikh Ibra gi ngir loola ñu gën a wéyal ndigal loola ngir saytul ko wormay dëkk bi ngir di ko saytu te suñ dee wax wormay dëkk bi nag walla ñuy wax euh, euh, Touba xam ngeen ne penc mi mooy xol bi jumaa jiit mooy xol bi kon naka jekk ndigal mi ngi fi woon kon léegi suñ ñëwee jublu si màggal nit ñi dëgmal si Touba te képp ku ñëw Touba. Eh, war nga ñëw ci jumaa ji siyaare si kon jaadu na ñu ñu say gën a saytu loolu kon moo tax nag eh, sëriñ Ndaam Sooda mii ñëw fi teew tey teew ak sëriñ bu Buso mii nga xam ne mooy kilifa ak daayira Muxaddamatul Xidma ñu war a am ay kàddu yu ak soññe rek yoo xam ne dana jëm si ci ñun ñi nga xam ne ñooy ñun la sëriñ bi digal ngir ñu saytu ndigal li waaye dana jëm ci mboolem taalibe buy ñëw ngir war a jëfe ndigal kon sëriñ bi maa dañ lay jox kàddu gi rek nga baaxee ay ay ndénkaane euh, yu am solo comme ni ni yi ñu mosaloon démb rek. baax di la ziare di ziare kilifa nga bàyyi ko di wax ne yéen liggéey bi leen ci jàngal amut ndax weesuwut ak ak taalibe ak taalibe yaakaar naa koy jàngal ba ak kese dafa nga yoññi ko ndax lu ci lu daa lu ci ne ci kaw rek. luñ ci gisoon rek rek fi indi tax na dañuy wax ne Cheikh moom képp ku dund ci murid gi amal nga nga ko njukkal képp ku ñuy ziare mbaa ñuy fay la jox amal nga njukkal Cheikh Ibra Fall yàlla yàlla na ko yokk leeram yoon wi nag niñ ko xame la nga xamoon démb dong la demee dafa bari loo xam nag gaññ nañ ko fi indi tamit loo xam ne bokk ci te ku ñàkk fay dañu yóbbaale la ci ndax ñoom xëy na am na ñoo xam ne daanaka coow rek lañ ci indi waaye lañ ci itteel bëriwul waaye cosaan yi moom yéen xam ngeen kenn dinañ ko jàngal cosaan yooyu nag moo mat wattu ba dara du ci sikk dara ci mejj te mooy ni ñuy orma barab bi ak ñu joxe orma ki fi nekk ay ñu joxe orma njabootu sëriñ bi loolu yaakaar naa ne kenn du leen ni jaar leen fi wala jaar leen fi xanaa la cay xew rek mooy ni ma ko waxee yu bees yi ci bokku ci ñu bañ ko ci bañ ko cee boole ndax mën nañu wax ndànk du xëy na bëggu bëggu andi ko xam la wala xëy na ñoom ñoo koy def dañu am nañ ci jublu. waaye ah, orma ji moom lu ñu leen ci wax naan jaar nañ fi wala jaar nañ fi amatu ci ndax lu bari lu ñuy xamee murit ku murit moom Sëriñ Faal ko fi moom moo tax boo gisee moom xam ne kenn murit la ndax ak taalibe bi amoon na njëbul it xëy na amoon na waaye doxin wi nga xam ne moom foo gisee murit xam ne gis nga murit Sëriñ Faal lañ koy sante te doxin woowa yéen nga ci mosu leen ko wàcc benn yoon ci li nekk te dara gën ci nag yar ak teggin orma yar ak teggin dara gën ko ci liggéey bi it dara lu ci gën orma yar ak teggin amu ci yorloo wuñ ñu mag ñi yorloo wuñ ñu ndaw ñi danañ ci barab bi xëy na xam nañ li barab bi laaj ku fi dikk di gan te xëy na xamoo ko ñu xamal la ko hmm. ci kaw la nekk fi nu mu yar ak teggin ndax nit ki nekk nit la mu am rek lay joxe nit nag boppam daf koo jege lool am na lo lu nga koy xamal lu mu am am solo boo ko xamee ne da ngaa rek daaka du du ko nangoo xam ndax du dana nangoo déglu waaw waaye am na foo ko jaar foo xam ne loolu kenn duñu ko jàngal koo xamal te du ci ko naqari waaye magum jëmm moo xam ne xamu fu mu yaroo. xamoo lu mu gëm danga nga koo gis rek doo ko yuuxu yuuxu ma kenn du ko def kenn du ko def doo gëdd waaye ku ci nekk rek mën ko xamal la nga koy xamal te du la te du la jëppi te dana ko nangoo xam waaye am na foo xam ne boo ko fa tàmbalee rek du du la du la déglu ndax da ko benn da ko benn da ko benn ba noppi waaw loolu daal mooy yoon wi te loolu du mën a leen jaar leen fii war a jaar leen fii kon liggéey bi lépp gënul yar ak teggin ak jox jox orma barab bi loolu yar tegin rek gën génn ko xam daal xam la la ñu def loo ko xamul ñu xamal la koy naa ñu yàlla kam kattan ci anam bu nga xam ne moom lañu ko jàngale moom lañu koy dundee waaw loolu daal loolu ñu wuute ak ya yarub ñeneen yi waaw yow ñu ci des dañ koy defee doole mbaa ab yar mbaa ak xamadi toroxal la nanga ñun nag loolu suñu mbir hmm. moom ay bokk lañ yoo xam ne xëy na ñoo bokk luñ bëgg hmm. ñoo bokk di ko wut xëy nag wutin wi hmm. wóote na xam-xam bi wóote na ndax ki nga xam da cee màgg dund ci toll ni mu toll kooku pas-pas la pas-pas nag ni waxtu ak la nga ca am ku ne ndab la nga ca yor waaw suñ war naan wax ne bu leen ma sant sant leen la mi xar xaran la mi ana ko yàlla mi yett xol yi man ndab lu ma jox ma dugal la ko foofu nag fi li ñu fi am ko ne ko martaba Cheikh Fall la bëgg mm-hmm. ma ko mi ngi fi de mm-hmm. duñ fenn waaye fa mu xëpp fa mu fa mu sëppoon xëppoon ba léegi de mm-hmm. ko yoroon léegi kenn jëlee ko fa waaw kon parce que rek ci li ñuy rawaatee parce que dafa doon lu nit waaye nag mën nañ mën nañ cee teete nit ba ba am ci lu mu amutoon waaye mu ngi si def sol sol ko nit moom yow nga nga ci am ba nga màgg ba tey ñu ñu ñu ngi la ciy teete doo wute ak nga ki nga xam ne waaw dafa séen rek mu ñëw dugg kooku moom mooy aajo teete bu baax a baax a hmm. la muy def ko jafe ak ñàkk rek wala ak jabeel waaye xam ne ak ñàkk xam la waaw loo xam ne léeg-léeg bu gàttoo rek kii dafa xamante wala kii dafa nangam fekk ak ñàkk xam rek la bu xamee rek am loo xam ne am lu am njëriñ loo xam ne am na lor te um njëriñ koy def da nga koo xamut boo xamee ne rek am am na lor rek ndax lor moom kenn bëgg ko hmm. rawatina ko jógee dëkk dëkk ñëw ñëw ñëw Tuubaa jëriñ ko jëriñ da ko fi indi hmm. kon boo xamee loo xam dana wàññi loram du ko def hmm. kon daal euh, mbir yi moom mel na ni euh, yara teggin daal ci lépp ci la lépp ci lépp ci lépp ci lépp tënku loolu nag kenn du ko kenn du ko jàngal. kii kii war moom warut a ñëw ci nit ki bu fekkee da ngaa maa la gën a yara ko. maa doog a kon di wax moom maa gën a yow wax waxi dof rek la waaw maa gën a yow kon te yow ko waaw maa boo ko waxee yàgg na moo la moo la moo la tane moo tax bi la joxee bi la joxee li mu am yow da koy jox li nga am waaw mu xam mu xam ne li nga am moo gën li am waaw waaw xamee rek dana demoon maa gën a réew moom du waxee dara waaye boo def da nga xam maa gën a dof boo xam da nga maa gën a xamadi loolu moom du waxee murit am murit wërta wax loolu am dara ci réewante ba bu koy ëppaleen waaw <laughs> waaw waaw. Alxuraan dafa waxoon saaba yi bu bu leen yëkkati bu leen bu leen yëkkati seen ci kanamam. parce que loolu bi la xawli. Hmm. ko jëriñ barikum baax ba. mel ni ku nekk sama di wax doo ko def. loolu tëggan yooyu moom du toggee du toggee di hmm. li ma doon wax léegi nag ko fi indi na ci fi gaññee indi. Hmm. fii boo fi nekk waxtu saar doo dégg eh, rek bi yaa ngi dégg jërëjëf suñu tubaab jërëjëf suñu tubaab ko baax baax waaye nag war nañ ko war ma toll ni duñ nekk ci pegam di di di yëkkati suñu kaddu. na hmm. yëkkati kaddu kaw kilifa dafa ko ci ay teggin. Hmm, da bokk ci lu yees li ñu fi indi moom itam. Hmm. lu ci waay man ci ci ci ci ci dindi. wax yàlla bu demee daal lay gën. waaye nag fi di soow kenn du dégg. waaw jërëjëf sëñ Tuubaa lu baax la lu baax la sëñ bi suñ ñëpp ko sant waaw waaye dañ ko ko fas ci xol rek. waaw waaye di dëj ko di coow mel ni ku jëm ci ku ne ci istaat maa nangam hmm. loolu loolu rafetul sëñ bi loolu rafetul wax yàlla lu mu ñaaw lu ma ñaaw la doo ngay labiré ñii ñëw nag war leen a jubbanti hmm? ñii ñëw ci a jubbanti koo xam ne dangaa jóg ci barab ngir sàkk lu baax itam hmm. lu baax rek tax laa te barab ba amul am lu mu laaj te xëy na xamoo ko noona fekk fa ay nit ñu lay labiré yow lay seen ndimbal mooy boo demee li lay labiré nga di ko nga ko dégg waaw ndax sàkk lu baax ba bala leen fekk la ca loolu itam wax dëgg yàlla sakkanul bu jógee dëkk dëkk danga sa coono ba ak si ngir sàkk ci lu baax bu dikkee bar bañ koy sakkoo fekk nga fa ay ndaw yoo xam ne labiré dong moo leen sa bàyyi waaye waaye nga leen déglu te xam ne ñoom lañ lay lañ lay wax seen benn njëriñ nekku ci waaw di bu la waxee loo xam ne xor nga ba sa ko bay see léppam si sa njëriñ dañ dem ñu ko di nga xam ne lépp sa njëriñ waaw te barab bi dafa am lu fi fiy jariñoo te kalay wax loo loo fi jariñoo donc nga tax mu lay wax waaw kon moo tam ñi ñëw ngeen sàmm ñu bàyyi xel ba ñoo ñëw ñu waajal col mi waajal seen bopp tax na bu ñu dikkee barab bi fekk yoo xam ne labiré rek liñ ca xamut bu ñu ko labiré nañ ko nangu te xam ne ñoom seen jariñ dong seen njëriñ yéen dong lañ su waaye ñoom seen njëriñ ndax lañ leen dañ leen di sant ñoom xam nañ ko bi bañ a ngi koy def kon itam ku fi dikk na nga xam ne lañ lay wax sa njëriñ képp ak bëgg sa coono boobu nga def ba ñu Tuubaa amal la njariñ mu woon nga fi jële lor ndax fu ñu jële fu ñu jële baax fu nekk la fa jël lu soxan ba yombee ndax la la fay maye boo ko soxaanee rek sa nga fay jëlee kon itam ñu ngi eh, fàttali ñu ñëw ñu waajal seen bopp ci wàllu colin ci wàllu yar ci wàllu teggin ci wàllu teey ak ci wàllu dal ak ci wàllu déglu ñi nga xam ñoo ne fekk ci barab bi lañ leen di digal ñu xam ne lépp seen njëriñ la ñu tënku ca lool seen lépp seen seen njëriñ lay doon. asalaamaaleykum wa barakaatu eh, ñu ngi nuyu Serigne bu Bousso eh, si turu sëriñam Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di ko jottali ab nuyoom ak ak ak cantam ak ub eh, di sant rek di bég lool si kàddu yi nga xam ne teewe nañ ko fii xam ne amuñu dara luñ si dolli loolu fas yéene fas ko yéene jëfe rek noonu ko sëñ Afe waxee. ndax moom nun moom ay taalibe la ñoo xam ne ndigal rek moom moom moo nu tënk ndigal rek la ñuy déglu te lii nga xam ne am nañ ko muy tawféex gii ndax si ko sëñ waxe léegi rek wuro Touba moom xol bi mooy jumaa ji dama ne ku doon wër sëñ Touba tey fii rek ngay jubal si jumaa ji rek ngay jubal te it màggal gi doon na bis boo xam ne àddina bépp a fi ñëw te ku fi ñëw rek la njëkk a nekk sam xel mooy nga si fii si bërëb bi ba siyaare ki nga xam ne ku tedd ki nga xam ne moo fi nekk kon képp ku fi tàbbi war ngaa am melokaan woo xam noonu ko sëriñ waxee eh, raxas sa ndab ba mu set ngir boo ko taajee ñu man la see duyal ba mu fees dell rek loolu nag si ay aw melokaan la eh, ak ak yitte ja ngay am pas-pas ba ngay am nga xam ne moo la yëkkati nga bàyyi ko fa fa nga jóge ñëw di taataan si di wut si kuy wuti moom am rek la bëgg te am rek ko jikk kon loolu moom sëriñ bi def na si soññ li si dolli ko daal mooy liggéey bi nga xam ne sëriñ bi sant nañu ko nu fas ko yéene ànd ak yéen ñu ngi am yéene defe ko noo xam ne dara du si juyoog la nga xam ne moom ngeen nu si digal muy lay seenu bëgg fas nañ ko yéene njabootu Seera Faal gi ñëpp rek ñu ñu ko àndal li may wax léegi sëñ Xaadim ma ne ko ndigal moom caabi la bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi te mm, waxtu woo xamante ne eh, jot nga ko moom yow tënku nga ñi mm, nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg wax na ko ndax xel mi moom ñun fi ñu ko yittewoo mooy nu nuy def ba jariñoo ko si jëfe li nga xam ne moom la sëriñ bëgg ñu jëfal ko ko mooy ni ko sëriñ bi waxee nañ ànd akuk dal nañ ànd akuk teey nañ ànd akuk ràññee nañu xam li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg mooy ñi ñëw gane sëriñ Tuubaa lañ ni ko sëñ waxee rek bari na ñoo xam ne dinañ def loo xam ne xamadi rek moo leen si dugal li sëñ moo demante daax nit ki suñ ne ko da ngaa xamadi mu jàpp ne dañ koo saaga fekk na du du aw saaga da ngaa xamadi mooy ko xamut rek waaw na nit bari na ñoo xam ne dañuy juum waaye sa lanu bëgg rek lanu juum ak bëgg rek leen koy yóbbee ñoo ñëpp nag dañuy jar a noonu ko sëñ bi ku ñëw bëgg a tàbbi si biir jumaa ji Euh, bu fekkee dafa am melokaan woo xam ne sax bokkul ak ba nga xam ne moom lañ taamu bu nu ko gëdd bu nu ko yuuxu nanu maslaa ak moom ndax sëñ bi laabirante la wax nanu laabirante ak ak ak ñi nga xam ne ñooy tàbbi ndax ñëpp a fi ñëw mm, ñu dul julli sax dinañ fi ñëw kon nag nañ laabirante ak ñoom waaw ñoo xam ne euh, nit ki su la wanee ab safaan nga delloo ko ko yàgg moom a yem rek wala moom mu tane la yow li nu séntu si yow mooy ku ñëw akub safaan it yow nga am mat gu toll ne danga ko daal di mën a euh, jaay loo xam ne wala nga labiré ko loo xam ne bu fi bàyyi ko moom ak defaru lay doon si moom te am na foo xam ne boo fa jaaree nit si loo xam ne ak labirante la bu delloo bu wéetee ak boppam dootu ko def mukk sedd na loolu bis bu set ñu am si ay tegtal ñoo xam ne dañuy waxtaan ak ñoom si yenn yoo xam ne tañ na dañoo jàppoon ne lu woyof la. fekk lu diis la gann la waaye buñ sa bàyyi ko rek ñoom dañuy am yéene dootuñu sa jaar mukk sedd na noonu nag la ko sëriñ bi bëggee rek mooy nu labirante nu soññente ndax si la ndimbalul ñëpp nekk ndax kuy ñëw da ngay wut si rek te kuy wut am rek nga bëgg kon nag loola moom fas nañ ko yéene incha allahu defaat ay waxtaan bu baax ak mboolem ñi ñi ñi fiy ñëw sëñ eh, ñi ñu la booleel eh, nga xam ne eh, da nga ànd ak ñoom liggéey bi. fas yéene ñoom ñëpp rek ñu soññente rek bu baax a baax ba bu nu bu nu gëdd kenn bu nu jànni kenn bu nu toroxal kenn euh, yooyu yëpp nañ ko nan ko moytu ku ku ñëw ak melokaan wu wudul noonaat nañ lay birante ak moom si kaw ak dal si kaw maslaa si kaw doxin wu yiw su boobaa la nga bëgg danga ko am mbaa boo ko amut it nga xam ni kooka xañ na danga koo mënta am boo ëllëgee xañ na yàlla mën naa def ab xolam euh, leen tàbbi si muy euh, la gën sa moom daal fas nañ ko yéene di di sa ñaan sëñ bi ñaanal nu bu baax a baax rek ba ni ko sëñ bëggee nu mane ko ni te defe ko ni waaw ñu ngi ñu ngi sàkku sëñ bi ñaanal nu bu baax a baax waaw am am yéene defe ko nu ngeen ko bëggee rek waaw incha allahu waaw ñu ngi tuub nag si kàddu yi. Eh, fii ma wax dëgg yàlla wër noo wax moom waaye nag sëñ moom lay wax ne dañuy jékkati kàddu moom <laughs> ñu ngi siy tuub bu baax a baax waaw ñu ngi siy tuub bu baax a baax eh, ñaanal sa borom guddal sa fan lool wéral cër yi lool waaw liggéey bii la sëñ Tuubaa dénk eh, yàlla doon loo xam ni ndam yoo xam ni kenn du ko mën a natt rek ak sëñ Tuubaa ak njaboot gi yëpp rek ñu ngi koy ñaan bu baax a baax sàkku ngeen ñaanal lool ñaanal sëriñam di moom it mu yàgg fi tëwéer ndax am na yéene lool si liggéey sëñ Tuubaa bi am na si bëgg lool waaw xol bi moom fam fam si àgg kenn mënu koo natt waaw ne moom ñaanal ko bu baax a baax rek ñu ngi sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf